thank you Bila sama. Bila sama. Ya tidak. Ya tidak. Ya tidak. Alam wasalam ya mimpi. Alhamdulillah ورسولنا خير الورى ورسولنا سبيلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الرافع السماوات بلا عمد والصلاة والسلام على من بعث لأتمم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي في تيو غناو بنو سنتي برب سبحانه وتعالى ممي يكتي أسمان متيم نيو tàllalal ñu suuf ñu di ci dox boole ñoog yenent bi nga xamante ni moo di yenent bi gën ci yenent yi waaye itam def nu ñu nekk di xeet wi nga xam ni moo gën ci xeet yi waaye itam jox ñu téere bi nga xamante ni mooy téere bi gën ci téere yi waaye tam jox ñu weer wi nga xamante ni moo gën ci weer yi mu di weeru koor loolu ak cant la gunu war a delloo sunu borom subhanahu wa taala njukkal mbokk mi wax na sànq sunu gis-gis ak sunu jàngat ci li nu gis tey yaakaar naa ni ma gisee yéen ñi fi teew yépp noon ngeen gise ni may jàngate itam yaakaar naa ñi fi teew ñépp noonu la ñu amee jàngat ci li ñu gis tey gis-gis bi day ba ca njëkk mooy sant yàlla mi nga xamante ni moo nu xéewale lii ndax bu nu sunu borom xéewale woon lii duna ko mën a am te bari na ñoo xam ne bëgg nañ lu mel ni ki lii te mënuñu ko am lii dafay firndeel rekk ni li alayhi salaatu wasalaam waxoon ni ilmu kulli shay'in afdalu min jahlihi loolu moo feeñ tey xam-xam bu nekk nga xam ko moo gën nga réere ko ndekete woo manees naa boole ay fànni xam-xam yu wuute waaye nag mi ngi aju ci pas-pas ak ngëm-ngëm pas-pas bi ñu gis tey ak ngëm-ngëm bi ñu gis tey moo feeñal lii mbokk mi wax na sànq ni conférence lan wax waaye bu du woon loolu nii ñu ko defee ci arab noonu lañu ko mane ci nasaraan loolu dafay dalal sunu xel waaye dafay dalal xelu parandeelef yépp xam ni bu lii tasaaroo woon ci àdduna tey xel mën a dal waaye itam lii dafay firndeel ni ndekete woo boo góorgóorloo li alayhi salaatu wasalaam waxoon ne xam-xam bu ne nga xam ko kon daa gis lool tey jii fii ñu jàng seen nasaraan te mooy français bi jàng itam seen alquranul karim te wàññiwul dara xanaa yokkute rek moo ci nekk loolu dafay firndeel ni fa tabaarakallaahu école bi mi ngi bay waaram day firndeel ni école bi wax dëgg yàlla ku seetlu daa gis ku déglu daa dégg loo xamante ni dana tax yow mi jël sa doom dugal ko ci école bi doo ko rëccu mukk mbokk mi wax na sànq ñun booba léegi daanaka mënuñu téye suñu bopp suñuy rangoñ di sotteeku te rangoñ yi sotteeku dara waralu ko lu dul mbégte dara waralu ko lu dul kontante dara waralu ko lu dul gis loo xam ne dafa gën a kawe suñu njort lii nag dan koy sante dëgg dëgg cant mbokk yi nga xam ni ñoo leen taxawu yiir leen ba lii mën a am tey jii mu mel ni kon gis nañ fi mbokk mi yar feeñ na ci biir te ku wax at tarbiya wax at taalim at tarbiya wa taalim yar ak jàng dañuy fal di wax ne xam-xam bi lu mu bari bari bari te àndul ak yar du jëriñ dara taar bi lu mu bari bari bari te àndul ak yar du jëriñ dara askan wi nga bokk lu mu rëy rëy rëy rëy te àndul ak yar du la jëriñ dara ñu ne waaw lan mooy jariñ ñu ne xam-xam bu ànd ak yar te yar feeñ na fi tey jii ko gis xale yi daa gis ni yar feeñ na fi waaye jàngale tigi feeñ na fi kon kay yaakaar naa mboolem ñi fi teew jël seeni doom dugal ci biir gis nañ ni am nan loo xamante ni dal na seen xel ci ni ñuy jànge français ni ñuy jànge alquran te yàqul dara waaw fii tey sunu réew mii tey boo seetloo gis daa gis ay cadre yoo xamante ni fi nu àgg tey fu leen fa àggale du dara lu dul jiital alquran boole njàngum alquran ak seen njàngum nasaraan kon alquran jënu jiital moo leen ubbi tey ba bunt yëpp mën a ubbeeku te imam safiu radiallahu taala anhu dafa waxoon wax ju am solo mune kullul ulumi siwal qur'ana mashqala illa alhadisa wa ilma alfiqhi fi ddin wante wa ma siwa zalika wiswaasu sayatin mune bépp xam-xam bu man di doon nit diko jàng ci kaw suuf neena na occupa bu dul alquranul karim nee occupation rek la ba yag mune ah xana nga toftal ci hadith ak fiq waaye nag sunu deltoo ca ginnaaw daanu gis ni jàng lu lay defaral sa adduna am na solo waaye itam jàng ngir lu lay defaral sa àllaaxira am na solo te boolee ñaari njàng yëpp dafay defar sa adduna waaye dafay defar sa àllaaxira fi ñu koy tënkee mbokk mi mooy li alayhi salaatu wasalaam waxoon ca waxam juréy ja mu ne ku bëgg addina bu jag wutil xam-xam te yéen a nga ca yoon wa mu ne ku bëgg àllaaxira bu jag wutil xam-xam te yéen a nga ca yoon wa waaye mu ne nag ku bëgg boole àddina bu jag ak àllaaxira bu jag wutil xam-xam yéen a nga ca yoon wa mu ne xam-xam yépp nag ba ca gën a kawe moo di xam-xamu alquranul karim ndax bu jiitoo ci yow rek daf lay ubbi ba beneen jàng boo soobu man caa jële ak yokkute kon loolu moo feeñ tey suñu bokk suñu xarit suñu soppe al oustaz libaas mi ngi ci kaw xam naa di ngeen ma baal donte que ñaari minute la moom daanu ko jox ba mu gën a xuus ci loolu incha allah waaye nag oustaz dama dégg lu am solo xale yi wax ni ahlan bikum kontaan nanu lool ci seen ñëw ahlan kontaan nan lool ci seen ñëw gi nga xam ne ñëw nañ fii waaye wax jooju mayit dama koy abbu ak mboolem parandele fi ak mboolem ji fi teew delloowaat leen ko mayitam ba wax ni ahlan bikum ñu itam kontaan nan lool ci nurul huda waaye kontaan nan lool ci yenn élèves yu góor yi ak yenn élèves yu jigéen yi waye ñun ñëpp itam entré na contane lool ci musse kan diko sante sant di diko ñaanal yalla taxway bi gëna yok yokk bëgg da ngeen yëpp ngeen tacc ko ci musse kan deug la yello nako waye tam comme ne ngeen ahlan bikum contane nan lool ñu itam kontaan nan lool ci madame Kane tàccu leen waay madame Kane gis ngeen seen teewaay bu rafet bi kaar macha allah waaye itam kontaan nan lool dëgg dëgg kontaan ci muse Sall waaw waaw kontaan nan ci moom lool noonu itam lanu kontaane ci Oustaz Kane mii noonu itam lañu kontaane ci monsieur Lam ak monsieur kamara noonu itam lañu kontaane ci Cheikh Bey ak monsieur Anne noonu itam la ñu kontaan ci monsieur Ndaw tàcc leen ko bu baax moom itam monsieur Ndaw noonu itam mbokk yi lañu kontaane ci monsieur Diawo ak Seyda Sey noonu itam lañu kontaan ci madam Sagna noonu itam lañu kontaane ci Oustaz Guèye ah gannaaw bu nu kontaanee ci ñoom ñëpp. maa ngi ñaan yal na yàlla kontaan ci yéen waaye itam duma daaneel sama kàddu te feeñalu ma suñu mbégte ak suñu kontante ci parents d'élèves yi tàccu leen parande d'élèves yi kenn du ñoom ndax it bu mu sekan ubbi woon te gisul ku ko andil élève du sotti moo tax yéen parents d'élèves yi kontaan nañ ci yéen beneen ba itam ñu kontaan nag ci euh, sunu mbokki caméraman yii fi teew nga xam ni tey lu fi jaar lu fi jàll ñëpp danañ ko mën a seetaanaat ëllëg incha allah tudd ci rek ku mel ni rajo Safina FM 98 point 2 euh, ànd ak télé ba di Safina TV moom itam ñëw na. dana dugal lépp ci biir incha allah jombul fii ak lëndi incha ku seetaan boo duggee ci youtube bi daa gis mboolem loo xamante ni jaar na fi incha allahu taala moom it ñu tàcc ko bu baax a baax waay kon daal maxdaru nuurul huda am nan mbégte am nan kontante fa jazakum wallahu anna xayran yal na yàlla fayal nu leen yiw بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء قيتاً وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم اسمي يما كان أتعلم في مدرسة الإزاك بالدار محضرة نور الهدى الآباء والأمهات السادات والسيدات وضيوفنا الكرام وأساتذة الكرام أريد أن أقرب إليه ما تيسرني من القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيوغي لين دي نيو nuyu euh, kilifa يب teew yépp mu di ay ak professeur professeurs yi nga xamantene ñewul nañu taral bés bi ma ngi ñew ci turu madame Ndiaye nga mom moy inspecteur chargé de l'enseignement l'éducation et formation ci Keur Massar ci département de Massar nga suis l'école école bi ci la bok moma ma pour ma ñew représenter l'IFB. Euh, aussi tamit ak sama turu bop ma ànd nak nag ak sama ben natango muy euh, Jubayel Ba mu di chargé de l'éduca euh, concours de l'IEF moy mo chargé lepp lo xamantene lu aju ci évaluation euh, concours ak examen yi euh, suñu teewaay nak niko oustaz waxee kóllëre la

mu ngi koy taxawee comme ni mu waree ba moo tax loolu daf ñuy neex ndax tamit yenn saa yi du nekkee noonu toujours beneen mbir bi nag li nga xamante ne man moom particulièrement li ma gën a fasciné ci école bi mooy méthode pédagogique bi ñuy jàngale ah nekkul ne damay wax lu neex wala lu lu kii mais c'est mun naa ne wax c'est benn la li ma gis gisagum. tabarakallah jaar naa ci inspection yu bëri ëpp na ñeent wala juróom aussi tamit jonjoon naak samay collègue inspecteur yu bëri bokk nañ ci ay séminaire bokk nañ ci ay ay kii yu bëri waaye méthodologie bi ñuy jàngalee fii ba mu indi résultat bi muy indi mun naa ne benn la fi gis nañ ko daaw mu fasciné ñu xale boo xamante ne am na baccalauréat série S mokkal alxuraan ci même at loolu mu de lu yéem te atam atam âgé wul ndaxte critères yooyu yëpp dafa am solo ndaxte am na ñu koy am ci yeneen anam am na ñoo xam ne dañuy jàng alxuraan ba mokkal ñëw dal dal CI wala CP di dem nag xam nga yooyu âge bi du la xaar. âge bi ma mu ngi doon dem yow yaa kii yaa commencé waat CI mais sa âge nekkul âge CI bu boobaa di nga dem balaa ngay eggati baccalauréat problème la dina yàq dina tardel lu bëri si sa dund beneen mbir mi mooy euh, euh, kii la beneen mbir bi mooy euh, souvent si école franco arabe yi ay série littéraire la ñuy jàng littérature moo ci ëpp soit bu dee français bi xaw na équilibré xale bi moom dina mën français làkk français bi làkk bi aussi dina mag mën làkkum arabe bi waaye nag li ñu gën a soxla tey jamono ji muy option boo xamante ne éducation nationale mooy option mooy matière scientifique yi mu nekk mu jàng science loolu mooy ciy manqué te alhamdulilah école bi dañuy gis option yooyu yëpp dafa daf ko dajale moo tax expérience la boo xamante ne ñun dañuy wax toujours nan lañ koy imiter ba gën ko yaatal ndax tamit am na loo xamante ne ñii nekk ci privé ñoo ko mën a def sama état dafa xaw a yéex moo tax yenn saa yi expérience yooyu duñ ko mën duñ ko fa mën a am dafa aussi tamit dafa am ay contraintes yu bëri ci aju par contre koo xamante ne moo yoree élève am euh, am benn pacte ak parents d'élèves yi mën na def réaliser lu bëri loolu la.

ñi chargé examen concours évaluation ak yooyu yëpp ñëw toog ñu waxtaane njàng mi est-ce que njàng mi nu muy demee neex nañu wala neexuñu lan moo ñu si manqué waroon nañ sax di may parents d'élèves yi ay ay euh, ay kaddu ñoom tamit ñuy wax seen ressenti yi ak lan la ñu bëgg ci xale yi asatise yi gën ko mën a jàpp en jël en considération ndax euh, impact bi njàngum alquran am ci njàngum français bi déjà le résultat bi la ndaxte yàlla day wax ci alquran inna hadha alquran yahdi lil ladhi hiya aqwam alquran bi da fay jubal nit ñi ci lu gëna a jub loolu c'est c'est al ibratu li umum al lafz la ñu ko ñu koy wara ñu koy faral di waxee ci tafsir bi lolu yemul rek ci diine wala ci ngëm-ngëm wala ci mais ci partout dans la vie alquran boo ko jiitalee daf lay gindi daf lay xàllal yoon wi nga xamante ni bi bi bi euh, bi ngay war a jaar ba moo tax euh, xam naa ne fekke wuñu conférence bi waaye nag euh, xam naa ni jaar na ci yenn foofu lan fan lay feeñee ndaxte jàngum quran dafa boole ñett oustaz wax na ko sànq rigueur rigueur boobu souvent moom mooy manqué ci école yi nga xamante ni ñooy école école publique yi ndaxte ku jàng alquran dafay jàng ak rigueur mooy jàng ak rigueur mooy day mokkal te ñun de plus en plus xam na boo leen ko seetloo ci seeni doom yi xale yi nangootuñu mokkal jàngatuñu mokkal même même inspecteurs yi ak enseignants yi dañ leen di wax mo mokkal c'est pas essentiel nekkul nekkul essentiel ni ñu daan ni ñu mag ñi daan def di tarwe alfiya ibnu malik di tari di tari ihkaamul ahkaam ak yu mel noonu xasaayid ay abyaat

ndaxte al al al ilmu fi sudur walaysa fi sutur comme ni ngui koy waxe xam-xam deug deug ci sudu ci si dënn la wara nek waye nekul ne sa yu ñu la waxe euh aaya nangam il faut nga ubi tere bi gis ko lolu du xam-xam la waye xam-xam bu dess la xam naa ne oustaz bugguma guddal bu baax ndax tam na liggey bi bari na lool waaye lii moom mënon nañu am ben genre ndaje bo xamantene même xalé yi bu ñu jàngul ñun ñu waxtaan ñun parents d'élèves yi enseignants yi euh inspection bi ak ñeneen ak techniciens éducatifs euh, de l'éducation ñëpp ñu waxtaan ci bu baax donc di euh, di dellu di gërëm rek oustaz Kane bu baaxa baax euh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi xamna danaka inspecteur kaddu yi nga xamanteni jëyloon na ko sànq maneesoon na ko doyloo ndax lépp loo xam ni tey waroon nañ ko wax ci thème bi moom fa tabaarakallaahu ñëw na ci ñëwin bu am solo boo xam ne ñun mënoon na doyloo rek kàddoom xanaa di santaat rekk sunu borom subhanahu wa taala delluwaat di julli ci alayhi salaatu wa di wane waat sunu mbégte ak sunu kontante di wax rek ni jàngale daal pour mën a am résultat bu am solo ñett ñii ñoo ko seq bu kenn ku nekk bayee waaram rek jàpp naa ni daañu am lu ñu mën a jariñoo incha allah su ko defee kon ñu gis ne ñett ñoo ñi nga xamni ñoo sekk li nga xamni modi moo modi jàngale kat bi jàngale waye tam modi ki jangulu jàngulu te mooy parents yi bi ci dess tam moy ki jàngale inspecteur daanaka loolu fi waroon wax rek wax nako jere jërëjëf jazakallahu khairan bi ci dess moy ñu gis ni jàngale ñetti ñii ñoo ko séq mooy kiy jàngale di maître bi ak ki jàngalu muy parent fi ak ki jàng muy élève bi ñetti ñii kenn ku nekk boo bayee sawaar rek résultat bu am solo day feeñ te seetlu na ni fii ci école bi Isaac wax dëgg yàlla élèves yi ñu ngi bay seen war mo waral li feñ tay feñ waye tam gis nañ ni parents d'élèves yi wax deug yalla ñi ngi bay seen war seen jotaay bi feñal nako waye tam jangale kat yi ñi ngi bay seen war liñ fi deug tay itam waré nako bi ci des nag mooy ñun ñep bëgg na ñu xamni waxoon naa ko sànq alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne xam-xam bu nekk nga xam ko moo gën nga réere ko mooy xam-xamu nasaraan mooy xam-xamu anglais mooy xam-xamu arab mooy xam-xam bu mën di doon waaye gis nañ ni nday xam-xam yi moo di alquranul karim alquran mooy nday xam-xam yi ndax ba Ali salaatu wasalaam waxe ni ku bëgg adina bu jakk wutal alquran wutal xam-xam waye ku bëgg àllaaxira bu jakk wutal xam-xam waye ku bëgg boole ñaar yépp adina bu jakk ak àllaaxira bu jakk wutil xam-xam waye ban laaj nak lan moy xam-xam nak deug deug ñu ne moo di xam-xamu alquranul karim ndax iqra bismi rabbik waaye itam daanu gis ni li ma waxoon sànq ci imam Shafii yu day dëggal loolu daa waxoon ni kullul ulumi siwa alqurana mashqala ba yàgg mu ne illa alxadisa wa ilma alfiqhi fi diin bépp xam-xam ba man di doon budul alquran occupation rek la waaye daanu gis ne alquran jooju bu jiitoo ci dëndu xale bi xale bi fu mu bëgg àgg insha allah dana fa ag, ndax xam-xam wala bok ndax alquran mom dafa ñew pour ubbi la seetloo tay ci rew mi cadre yu bari bo len setlo boo demee fu mel ndar wala nga dem ci yenen dekk wala nga dem ci yenen gox da gis ni ñi ci bari dañ dan jang alquran ba agal, sogo sobu nak nasaran, ci nyu nasaraan te du ñu am ca résultat bu am solo. waaye ñu gis ne léeg-léeg sax loola mën na yeex ñu ne kon mën nanoo boole ñaari jàng yépp te du tee benn du tardé loolu kat feeñ na fii tey ndax ñaari jàng yépp moo fi feeñ waaye gis nañ ni fa tabarakallahu alquran ji tardewul waaye nasaraan bi itam tardewul yeneen lang it benn tardewul moo tax kon xam-xam boobu di xam-xamu alquran bu jiitoo ci nit ki day def jeexital ci moom jeexital ba mooy day feeñ ci doxinam jeexital ba mooy dana feeñ ci waxinam jeexital ba mooy dana feeñ ci nekkinam ba ku ko xool xam ni kii kat ku ni yar la te alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni way njur joxul doomam kado bu gën mu yar ko rawatina yaru lislaam te at tarbiya wa taalim ñoo ànd jàngale ak yar kon dina gis ni première njariñ ba bi alxuraan ji def ci nit ki mooy danga am ndongo boo xam ne wala élève boo xamante ni wax dëgg yàlla bu waxee nga kontaan waaye bu jëfee nga kontaan da mbokk ak nga xam ne ñaare bu ñu génnee bu nu waxee rek nga dal sa gémmiñ suñu jëfee nga yéemu ndax alquran moo mel noonu su ko defee kon ñun ñëpp bu nu bokkee àndandoo fexe ba gëm ni alquran ji du am benn tardement bu muy def bu ko xale bi dee jàng waaye yokkute li def ci moom bu nu ko gëmee rek gis te njariñ kon ñu góorgóorlu baax xam ne jeexital ba ba ca gën mooy dana ko ubbi ba lépp lu mu bëgg a jàng day yomb ci moom ñaareel ba dana defar nit ki moom alquran ji ba mu nekk nit koo xamante ni day amee jikko yu rafet du dox di sànni du dox di saaga du dox mel beneen melokaan boo xam ne boo ko xoolee dana accam ndax alquran ji jiitu ci moom te itam doy na sëkk علي ساتو وسلام وخني نون القران في حديث بو ابي هريره ما فرتلي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يرجو الله ولا يرجو لقاء الله فليكرم اهل الله ابي هريره نينا كيف كو خامني gëm nga wala yaakaar nga ni bis dina ñëw nga dajeeg sunu boroom mu fay la ne foo fekk ñoñ yàlla ci kaw suuf na nga leen teral qiila ya rasulallah hal lillahi asa wa jalla ahlun ñu ne ko aw yow ki yàlla yónni ah kon yàlla dafa am ay copain ci kaw suuf na am sang mi ne ko waawaw يلا امنا اي كوبين امنا اي خريت تي كاو سوف قيل منهم منكو انا نين نوي خريت يالا تي كاو سوف قال اهل الله في الدنيا كوبين يالا تي كاو سوف الذين يقرؤون القران موي نيغا خامتي داني جانغ القران تي كاو سوف خدا لول دينا سك ndax nga bok ci xarit yalla ñang yàlla kon teewoo ñii nga xam ne ñooy xale yi di fi jàng alxuraan bu du woon nasaraan bi sax waaye ëllëg nga bokk ci ñoñ yàlla xariti yàlla loolu rek jan na jàng alxuraan muy tiraanga bu rëy waaye nee na alayhi salaatu wasalaam teg ci wax ju am solo mu ne ala dama ni man akramahum ku leen teral faqad akramahu llah yàlla teral la kon wa alquran ku len teral yàlla teral la du yem ca teral la waye wa aataahul janna daf lay jox aljana te moy dalay dugal aljana waye wa man ahaanahum ku leen doyadil suufeel leen woyofal len faqad ahanahu allah sunu borom doyadil la ba nop di ci yam wa addaqalahu an-nar tabal jahannama kooku nak yalla nti yàlla musal kon may jàpp ni alquran lettre la boo xam ni sunu borom moo ko jibril alayhi salaam mu jox ko yent bi sallallahu alayhi wasallam yent bi andil nuko ko ni jël leen ngeen jàng te wa ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu dama ni lettre bii di alquran sunu borom andil nuko ko jox ko yent bi sallallahu alayhi wasallam mu jox ñu ko nan ko jël te xam buñ ko jëlee yiw rek la jural waaw yiw rekk la jural waaye bu nu ko ñàkkee jël ngir oyofal ko ak doydul ko lam ñuy jural mooy musiba kon li nga xamante ne njàngum alquran dana ko def muy jeexital bu am solo ci biir njàngum nasaraan yaakaar naa ne li ci inspecteur waxoon rek doy na sëkk waaye nag bari na ay gëneel lool lool moo tax kon ñu ne fal na alam anna alquran kalaam allah ñun ñëpp war danoo xam ni alquran du waxi kenn waaye waxi sunu borom la waxi sunu borom nag boo koy jàng fokk mu am jeexital ba mu def ci yow te itam wa faddalahu ala saairil kalaam yàlla dafa jël alquran gënal ko ci mboolem kaddu yi waaw kon loo xam ne moo gën ci mboolem kaddu yi boo ko jëlee di ko jëfandikoo tiraanga rek la la mën a jural na xam kon day jàpp ne alxuraan yi ji ñuy jàng sax ci biir école bi mën naa gën a yëkkati école bi ba école bi àgg foo xamante ni fu nu foogul woon dana fa àgg ñaata nga seen tey ñoo xamante ni ay nit lan yàlla dogal ñu jàng njàngum alquran nasaraan boole koom njàngum français njàngum nasaraan boole koog njàngum alquran nga seen leen tey fu ñuy def concours ca kanam rek la ñuy nekk concours bu nu mën a def ca kanam rek la ñuy nekk te loolu dana ko mën a permettre ba bu ëllëgee fu mu nekk dana fonk julli juróom dana fonk woor weeru koor dana fonk génne asaka dana fonk ak màkka dana fonk ay waajuram waye dana fonk société bi ndax alxuraan ko def ci mom waye tam lépp luñ ko dénk alxuraan ja nekkon ci mom moo koy guider parce que mbokk bi wax na loxo na ko legi yahdi lillatihi aqwam mo xam dak ji lañ ko dénk mo xam directeur société la ak bu mu ci mën di doon te alxuraan jitu ci yow na ñëpp am ci yow yaakar te amna yaakar ci ni xale yii tey li ñu fi jàllale ak li ñu fi jàng ak li ñu fi wane loolu daf leen di topp mu nekk jeexital boo xamante ni ku leen xool xam ni ay sang moo tax ma ne kon qiraatuhu afdalu ma taharraka bihi lisaan kon jàng alxuraan làmmiñ yëngutuwul lu gën jàng alquranul karim làmmiñ yëngutuwul lu gën jàng alquranul karim xanaa loolu rek doy na sëkk moo tax kon daal ci gàttal al muslim yuminu bi ann alquran kitab allah ab jullit daa war a gëm ni alquran téere yàlla la te daf ko war a jàng xàqan daf ko war a jàng ndax day farata utlubul ilma walaw bi siin tey nag siin jigéen a lool ba wëlbati ko rek jàkkaarloog siin kon mbokk yi jullit dafa war a gëm loolu waaye bu ko gëmee daf ko war a jàng waaye bu ko jàngeet daf ko war a jëfe ndax jëfe gi rek mooy la am solo te tam nan gëm ni anzalahu ala xayri xalqihi wa afdali anbiyaihi wa rusulihi ñun ñëpp suñu yaakaar tey sunu rawukaay kay tey sunu texewukaay tey du kenn ku dul alayhi salaatu wasalaam te ci moom la sunu borom wàcce alquran ji mu nekk di sangu bindeef yëpp nekk di sangu yonent yëpp nekk di sangu mboolem yonent bu sunu borom subhaanahu mboolem yonent yi nga xëy ci kaw suuf kon kay nanu ko bàyyi xel bu baax. diko jàng waye diko ko lu am solo moy téere bi nga xamanteni boko jëlé jàng ko mu jural la texeg aduna waye jural la texeg alakhirah ndax araf bo ci jàng ñu bindal la ci fukki tiyaba effacer la fukki bakkar yëkkati la fukki daraja lolu bu la topé jeexital bobu bu la topé wax deug yàlla da ngay nekk nit ko xamni kin kenn doon xaar kenn doon xaar ci nit ki ak melokan yi doon xaar ak jikko yi rafet yi doon xaar ci mom dañ koy gis ci mom motax mu nek di téré bo xamanteni ni damina allahu salaamatahu min an naqsi wa ziyaadati wa min tabdil wa taxyir waaye wa baqaa'ihi yàlla ko garantir boppam moom téere boobu ma nekk di téere boo xamante ni mucc na ci àgg wàññent mat na sëkk mucc na ci luñ cay dolli parce que lu manqué ci lañ cay dolli waaye manqué dara ndax maa faratnaa fil kitaabi yaa ustaas min shay kenn du am loo ciy génne naa lii bokku ci wala am loo cay yokk waaye nag ay atteem dafiy des ba ba àdduna yu tukki ndax wa annahu nasaxa bi yi saa iral ahkaam kon nag mbokk yi liy duuf ci nag wi xajandoowul ci cin li te inspecteur li mbax sànq gis nañ ko dégg nañ ko kon daal bu nu góorgóorloo ñoom jàngalekat yi ba am lu ñu def ci xale yi muy njàngum alquran te mu leer ni daf leen di topp du leen wàcc mukk te daf leen di defaral ba may ay jikko yu baax nan leen di topp wax na wax na lu am so nan leen di topp nag waaye itam parents d'élèves yi ku am lu mel ni ki lii war nga fexe ba góor góorgóorlu fexe ba lépp lu koy ñoŋal lépp lu koy yokk nga taxaw ca te mooy taxaw ci wetu élève bi di ko jàppale di ko dimbali waaye itam di jàppale kiy jàngale waaye da jàppale itam ki nga xam ni moo ubbi école tey jii surtout nag yéen parents d'élèves yi bu ko defee kon. loolu ay kàddu la yoo xam ne mënu woon ñàkk ñu fàttali konte ak yéen xam naa mbokk maa ngi sama wet di Oustaz Libaas ñàkkul donte ka benn minute la moom dana ko jël tënk andi wala bu amee lañ fi dolli mu dolli ko ci ndax ñi mën ko jariñoo waaye maa ngi sant bu baax sama mbokk yii asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal gi ñaan ci borom bi subhaanahu wa mu jéggal ñu suñuy bàkkaar ginnaaw biñ jéggalante rëcc-rëcc yi dox suñu digganteeg suñu moroom dellu di waxaat rek alhamdulillahi rabbil alamin ci kàddu yi nga xamante ni moom lañu suñu ustaaz andil ak yi nga xamante ni moo fi jiitu suñu inspecteur sàll moom itam Sarr àndaali ñu ko mu doon joxoñ yoo xamante ni yépp dafay àddu ci wàllu soññee waaye ñoom li ñu indi lépp dégg nañ ko yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp muy li ñu dégg fexe ba bu ñu demee suñu kër ruq mën a kan ñu xool lan lañ ci mën a jàngat ndax kiy jàng muy xale bi dafa am ñoo xam ne ñoo koy gunge parents yi nga xam ne ñooy jàngul ñoom ñoo ci jiitu lu xale bi bëgg-bëgg jàng te amul parents yu ko jàppale du sotti kon parents yi ñoo ci jiitu ñoo am seen doom jël ko yóbbu ca daara ja mu fas yéene jàng naka noonu itam ñiy jàngalu ñi nga xam ne ñooy jàngale di ustaaz walla muy maître walla ku mu ci mën a doon ci wàllu woo mën a fiite kooku yitam dafa am ku ko yilif koo xam ne moo taxaw ne dama bëgg xale yi jàmbur yi ñu ma indil ku leen jàngal mu dem jëli ay maître jëli ay ustaas ñi ñëw di jàngale kon moom itam day bay waaram bu ko defee xale bi nga xamante ni moom woy juróom mu koy taxawu ci lu war ci njàng mi mu koy def wéyjur wi def na li ko war kiñ ko jox itam pour mu wutal ko ku ko jàngal muy muse kan moom itam def na li ko war waaye itam yow xale bi yow ci sa bopp itam danga war a def li la war mooy li lañ sant mooy jàng nga jàng ndax li war si yow lépp ñu koy def benn boo xamante ne manqué na rek fa tabaarakallaahu njàng mi mën naa sooxe te bu fekki ni bii ci wàllu muse kan la moom yaakaar naa ne li olof di wax naan weddi moom gis bokku ci waaye lu mel ni lii ku ko taxawal war nga ne ko ne masta dañu jàngat léegi ci inspecteur Sarr ci ay waxam ak jàngaleem ak ci wàllu soññeem lépp muy mu doon royukaay boo xam ne waa kër masaar bi nga xam ne fii la école bi nekk ci département bi ci la bokk war nañu jàngate comme ci école isak bi loolu lu jaadu la waaye de ki ko jiite di sëriñ kan fa tabaarakallahu pas-pas ginnaaw yàlla fu lii àgg rek moom moo ko fa àggale xamul guddi na xamul ba bëccëg na muy taw muy naaj lii fu mu àgg ginnaaw yàlla moom moo ko fa àggale ak ay njabootam muy lan dañu ko jël bëgg ko jox ko la mu war école bi man nees na ne wax école français la muy privé waaye bu la neexee nga ne franco araab la bu la neexee nga ne internat la daara la loo ci bëgg rek fa tabaarakallaahu mu ngi léeg-léeg am na yu ñuy faral di boole di boole ñaari njàng comme niñ koy waxe junj nañ ko léegi boo demee ci côté bi côté bii day xaw a manqué nga dem ci bee mu mat wala côté bee mat bii xaw a manqué mais bu dee ci bii déedéet loolu amu ci ndax li ci war da koy def ba mu mat sëg du caagin ne rek jàng mi da ngay ñëw ci école bi pare dem sa kër bala ngay jëlaat téere yi nga ñëwaat ci école bi déedéet moom du doxe ci loolu école am itam du doxe ci loolu tay ni muy jàngale ci biir école bi bo fi jugee dem ci kër ga noonu lañ fay jangalé école dañ fi ñëw ngir jëlé fi leçon toujours dama koy faral di wax du kay école du kay école pour jël sa leçon la bo fi jëlé leçon ba paré nga dem ci kër kër ga foofa la njàng mi nek li firndel né école du kay jëli leçon la mooy da ngay jël benn école ci misaal nga teg fi 60 personnes wala 30 benn bopp bëgg a def kenn ku ci nekk la war ci moom da leen di junj wan leen yoon wi ne leen mu ngi nii la ca des nag boo ko jàngee boo demee ca kër ga foofu ngay nafare mais bu dee ci école bi lañ la fa jox boo fa jógee tëñ nga ko boo ko xoolaatee da ngaa ñëw bu boobaa doo am benn résultat te gis nga macha allahu xale yaa ngi wàcc alquran te diir bi yaakaar naa ne boobaak léegi guddul te yàggul dara mayew ko nag lu muy pas-pas rek ndax mu ngi nii mbokk mi duma bàyyi may wax lu dul dëkk ñoo bokk nekkoon benn kër fa tabaarakallaa sanul xaaliqiin boo teelu la jug doo ko teg bët te am na nu muy demee balaa ñëw nga tëdd ngir lan njaboot toujours dañ ciy faral di wax maag moom mu ne man toujours damay jër référence ci sëñ kan waaw ndax moom njaboot li mu ko jaral xoolal kër gi li fi yeewoo te dooy wax danga naan xëy na kii mooy doomam xale la mu ngi nàmp kii doon ferantal te teewul mu jël sars lépp mboolem ku yeewoo ci kër gi rek la war ci yow da koy def ba mu mat sëkk bu jaree wax yedd mu yedd bu jaree toog nga toog bu jaree xeex mu simmeeku nga xeex ak yow da koy def ndax responsabilité dafa am solo ñi jël ne kii boo ko taxawoo ci ndawam bu màggee mën a taxawu boppam mën a taxawu ñëpp mais boo ko boyalee bàyyi ko ci bëgg-bëggam bu boobaa dina dem ba mën a war a tekki dara dootul mën a takk sax bay tekki loolu nag kenn ku ci nekk war na cee ñaan yàlla musal la ci doomi yàlla ñu ko jox muy jaaru waay yoo xam ne ci waajur la jóge laaj yi ëllëg yowmal xiyaam dañ koy laaj naka nga ko yore woon ndax jàngal nga ko dugal nga ko école nangam ak nangam yooyu nag bañ a dem ba yowmal xiyaam sa doom doxe la ginnaaw di la téye naan jàngaloo ma xamaloo woon ma téereb yàlla bi doontale xam lépp baax na ni ko yonent bi waxe waaye ba jiitu mooy xam téereb yàlla laneen lu ci topp rek dafay doon bénéfice fa tabarakallah sanul qaalihin kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp bi jaahi saydul wujud sallallahu alayhi wa sallam li ñu fi dégg rek macha allah ñu topp ko li ciy ndigal ñi def ko li ciy tere ñi jéem ko moytandiku waaye xam ne école bi dañ ko fi andi ngir lan xale yi nga xam ne ñoo fi dëkke di fi jàng même ñi nga xam ne ñu sori itam ku ci ñëw bëgg loose nga ñëw toog jàng comme ni ko mbokk yi di defe ubbi nañ bunt yépp fa tabaarakallaa sanu xaalihin di ñaan yàlla yàlla mottalil ñu ci darajay yonent bi salaa sallam di jéggulu naruñu ci woon a jël kàddu waaye rek macha allahu lépp dafa rafet di jéggulu bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jaamu yàlla ci